mais lak nuyu naa. waaw fay naa la sama copain. ci loolee li ngay xeeñ neex na de. maa la wala nu mu demee wasaare la man la di. bu dee mbëy ay saafara la <laughs> naa la kay dégg yow. ci loo waa wasaare baax a baax. yaa ngi ci jàmm. waaw maa ngi ci jàmm maa ngi ci jàmm fan neex na de. waaw alhamdulilah sant yàlla baax a baax. te yàlla yàlla def mu continuer. mais tey naka ngeen ñëwee. ñu gis ki nga xamante ne mooy Abdou Diouf duggoon na Fass am ca défaite. tey mu ñëw de eh, victoire. Abdou Diouf. diggante moo Forza. ak ah, moo Gris Bordeaux. non mais bu man nag bu njëkk wala yor. Ah, moo daal Gris Bordeaux. waaw mu ñëw Forza daan ko bu bëgg a daanaat Gris waaw mais loolu la. est que tey dina yom parce que Gris dafa am ci lu mu jógee nee na sarax la woon da leen digaloon ñu génnee ko génne leen sarax bi jeex na. ah jeex na loolu la ñu am ndoye ko wax fee la grosse dëggal ma waaw maa ngi nuyu euh, la di nuyu Pam Ndoya ah, di nuyu waa Fass yëpp leen la nañ Abdou Diouf ñu ngi ñaan yàlla nag yàlla na ko yàlla may ndam. mais ngi nga gisee état de forme Abdou Diouf. waaw alhamdulilah ah, ndax laale nañ. contact nañ jàppal nañ ko ci lépp te li ci des nag moom mooy yàlla ah. waaw yàlla nañ yàlla suturaal tey suturaal sama rakk macca yàlla may ko ndam tamit. mais dama gis Gris Gris Bordeaux ngi fee sa combat yaak moom cinq ans six ans ñoo ngi koy dox wala boog yaa ngi koy bëgg. mënul fexe ba jël la lan nga koy wax xanaa yéen ñaar di ngeen ko xaw a kii wër fii tuuti sax kan Gris Bordeaux laa la wax. te tëb foofu te wax leneen de du ko tëb yow ak moom loolu bëre par force la même bu ngeen bàyyi woon sax di ngeen bëre. même bu ñu bàyyi woon comme nan. bu ngeen bàyyi woon làmb sax da ngeen di bëre. <laughs> par force la làmb ko bëgg. <laughs> Gris Bordeaux waa baax na na ci Balla Gaye bare. na génn ci Balla Gaye ba noppi. waaw. bu ko mu boole la ci ñetti avancé ñeenti. bu mag nga. kan moo loon nga ne. moom nee na yi mu téye nee ñaareelu avancé yow buñ la ko joxoon doo ko jël. yow man bëriwuma ak Gris Bordeaux. mais li ma sama bëgg-bëgg laa wax. sax da nga koo ragal maa mu mën la. waaw dama kaa ragal. damaa sonn. mais nag la man koo la. Casamance amul ragal. amul ragal. ma leen wax comme fit waaye nag yéen tëb état boobu noonu. wuy ma guddi yi ñu nii. boole ma wax leen ma affaire roi des arènes. mais waaw mais franc la franc bi la tëkku barki dem bu yëg Ndiaye ne la na ñëw ma yoole ko. ah franc. moom mi sax waaw waaw bëgg bëgg bëgg bëggam la wax. na gën a góor góorgóorlu rek bu mu tëb état bi ndax bu tëbee état bi rek du baax ci moom xam nga nit mën ko ko tëkku tëkk bés boo lebee ba lekk avance am boo tëddee doo nelaw waaye na gën a góorgóorluwaat ñun bañ ñu may kenn sens xam nga bañ may kenn sens mais bul tëb état parce que ñi képp koo xam ne bëri naa man rek da fekk ne am na foo toll am na loo ba toll fa ñu may la may la sens mais guddi ñu toll nii ma benn xale sens ma benn xale sens lenn mooy sama objectif mooy lenn moom mooy bëri roi des arènes